Adja euh, c'est une émission doctorant hein, avec euh, Jack Albert 34e numéro 34e hein. euh, numéro balaa ñuy wax nag ci lambu dimanche bi dañuy bëgg a ñëw ci tournoi CEDEAO bi tournoi pour rappel d'après nañ ko la vidéo précédente, bi lutte olympique bi dañuy wax ne chapeau à ordinateur parce que ordinateur mu ngi soog la lutte olympique la lutte tapis bi lutte libre bi et franchement il est sorti vainqueur avec une médaille d'or et di féliciter félicité parce que franchement c'est pas euh, sa première discipline euh, sa première discipline pour nga xam ko pratiquer am ci médaille d'or franchement c'est n'est pas c'est pas facile hein mais chapeau ordinateur Je ziar aussi bu l'entraîneur l'entraîneur, parce que c'est sa première sortie aussi en tant que coach euh, en en tant que coach principal Je itam mu rafle ay médaille dul indi franchement di wax chapeau à l'équipement. Hein. pour rappel la lutte olympique modou fait ordinateur amna ci médaille or Séni Boubargny barni amna ci médaille or euh, ki Mamadou Diouf amna une médaille argent euh, Omar aussi a une médaille argent Maman Anta a une am médaille de bronze donc en lutte olympique l'équipe du Sénégal a na euh, cinq médailles deux en or deux en argent ak en bronze ñu ñëw ci lutte africaine bi lutte africaine l'équipe nag équipe de 66 kg Babacar Diène 76 kg de 86 kg euh, Sini Semben, euh, 100 kilos, Tony Junior et plus de 100 kilos Momodou Faye ordinateur. Mais euh, au finish, qui nous wax Ngor Niakh dafa mujjoon am blessure be place am dañ ko mujj a cédé ki ñuy wax Mamadou Mamadou Diouf be nga xamante ne moom lutte olympique bi la euh lutte olympique bi Mamadou Diouf bi lutte olympique mo mujjé remplacé Ngor Niakh parce que Ngor Niakh dafa mujj am blessure blessure wala maladie on ne sait pas mais en tout cas euh, Mamadou Diouf moko ko remplacer remplacé ci catégorie bu 66 kg. donc Ngor Niakh mujjul compétir ci euh, lutte africaine bi. donc lutte africaine bi aussi Sénégal ak Niger ñoo dem finale, mais 3 à 3 à 3 à 2 euh, Sénégal mo jël coupe ba Niger Dans Niger 3 3 2 xawoon nañu jaaxle xawoon nañu tic bi mu 2 1 mais franchement après mujj nañ gagné Modou fay ordinateur amna ci médaille d'or en équipe. Euh, ki ñuy wax aussi Tony Junior amna médaille d'or ak Mamadou Diouf aussi amna médaille d'or en équipe ñu ñëw ci individuel bi individuel bi aussi euh, Mamadou fait ordinateur ben amna amna médaille médaille d'or euh, Tony Junior amna médaille d'or Mamadou Diouf aussi encore ñëw médaille d'or donc carton plein à Mamadou Diouf franchement parce que moom itam lutte africaine taxaloon mu dem lutte olympique mo taxone mu dem mais amna médaille d'or en en individuel ak médaille d'or en équipe donc chapeau ci individuel bi toujours euh, Seni Semben ak Babacar Diène eh, ku médaille argent nga donc bo xolé kon Sénégal en équipe trois médailles or euh, en individuel amna ñetti or ak argent donc franchement euh, trois ak trois six ak deux neuf huit plus cinq médailles aussi ñuy am donc franchement Sénégal na donc ay médailles hein. ñuy ñaan les autorités euh, le ministre des sports en particulier ministre des sports fu mu toll nii parce euh, qu'il wax a amatul parce que démission, dafa mais Matar Ba mi nga premier ministre Amadouba, euh, Abdou est le premier ministre qui mujjoon le portefeuille du ministre des sports donc nous avons koy solennellement par le biais à travers de CNG ñu ferons bu recevoir l'en au palais nous recevoir l'en au palais comme nous recevons l'équipe de l'équipe de football et que football bi du indi trophée eh, président de leen recevoir jox lañ ci kër yi jox lañ ci millions yi mais pourquoi pas pour l'équipe nationale de de la lutte. parce que ñom bi ñuy avec leur capitaine nga xamante ne mooy ordinateur lu nekk def nako ci lamb lu ne façon raay bu nekk indi nañ ko fi Sénégal depuis bi Ambroise Sarr équipe bi ba tey la yaakar na né eh, dem def sortie au niveau international ñew ñak liñ ko def wul yaakar na né saison bale passé lañ ko defoon té lolu franchement li am bari wul donc président war na recevoir jox leen ci kër yi waxuma dama wax sax terrain de kër bo xamante dañ ko tabax ba pare jox leen million ak ay auto parce que franchement ils l'ont mérité mérité nañ ko comme nga xamante ren ji rek presque am nañ ci ñeenti coupe xama nga ñetti coupe boo ci au niveau international lañ ko amé donc franchement war na leen féliciter té sax mu waron nek sen sen accueil bi euh, à l'aéroport ou bien à l'arène nationale mais au finish dañoo mujjee dañoo mujjee information ne ils seront ils dañuy ñëw tardivement presque 23 heures bu il fa jógee 23 heures Fallait Kinshasa donc xaaju guddi lañ fi lañ fi egsi donc kon ñooñu kenn mënu leen teertu mais bëgg nañu nag franchement ñu jàpp pas bien boo xam spécial lay doon boo xamante ne tout Lions yi lay doon parce que ben euh, yow réew ñi nga xamante ne teew nañu francophonie bëri nañu te boo xoolee Sénégal li mu am médaille ci discipline lutte africaine bi benn réew amu ko pays amu donc on na leen féliciter bu accueillir leen comme nous ñu accueillir Bour bi ñëw aussi nañu fexe le tout pour gouvernement bi recevoir les n'ako ko na président recevoir jox leen ci terrain yi jox leen ci kër yi jox ci parce que franchement mérité nañ ko. bien loolu lañ leen indiloon ci tournoi euh, francophonie bi ñu ñëwaleen ci lutte simple bi nga xamante ne dimanche à l'arène Adrien Senghor. Sali Diouf mu neeraan foofu production mon fa on woon tegaleen un million de francs CFA ci animation ba Mayang Loum la woon ak euh, Palo bu Euh, lamb ji aussi a naa 35 lutteurs la amoon mais au finish ñaari avons rek ñoo ci mujj euh, dem ci Caritas bi muy euh, Gaskel Diamé Cheikh Faye bu euh, bu Fissel hein. Gaskel donc ñu ngi féliciter Gaskel bu baax di aussi Cheikh Cheikh moins de Cheikh c'est Cheikh di Cheikh Cheikh c'est la loi du sport sport boy dem da perte parce que lutte simple match nul match nul parce que ci pour mais ci match nul

ben euh, le maire de Mbam aussi la personne de Ngor Ngor y aussi ben yaakaar na ne moom en personne ñëwul mais yónnee na a na délégation aussi une forte délégation les invités d'honneur aussi ben damuñu kenn damuñu ñu des ñëwoon nañu ku ci nekk bu ñëw indi enveloppe bu am solo donc franchement Néerane euh, li que ci xaw déplorer ci euh, tournoi Néerane bi yëpp l'absence du public Le hein. public moo xaw manqué tout rek mais peut-être nawet bi la en plus aussi bu asamaan bi xesee taw mbër ñu bëri dañuy xaw a aji seen kàkk dañuy aji seen dëbës dañuy aji seen ngem donc loolu aussi tax na bi amateur yu bëri wuyu suñu xam nga parce que am dafa am amateur yoo xamante ne dañu am ay seen mbërëm spécial bu ñu xamee ne ñii bu ñu xamee ne Doudou Sané dañu ñëw ne Ngagne Sène dañu ñëw dañuy ñëw mais bu ñu xamee ñooñu li des ci saison bi dootuñu bëre peut-être ñooñu aussi dootuñu ñëw ci làmb tant que saison bi ubbiwaatul mais di ñaan yàlla nag saison bi di ñëw yàlla na ndaq bi nga xamante ne moom la ñu war moom la ñu war a clôturer nii peut-être le 13 ou bien le 20. bi la na parce que saison franchement ben saison bu saison bu la wax rek li nga dama ko déplorer les deux là, au terrain na les promoteurs de la lutte simple parce que les promoteurs de la lutte avec frappe ñom ont manqué ne département bi ci ñaari gala en même temps

suma ma jëlee Grand par exemple le 5 janvier hein ki nga xamante mom ëpp doole jël le 5 janvier te régal gi comment je je ferai nan la mujj def damay mujj annuler sama gala léegi ñak sama 100000 parce que wa Grand Adrien Senghor duñ delloo damay ñak sama 100000 ba paré fere buñ ci demoon aussi dama koy ñak loolu est-ce que en fait euh, jar na ko ci lu simple lu simple bari woon jafé jafe mosuloon am problème donc buñ démé ba problème bi bugg am diggante terrain gaal gi ak euh, Adrien Senghor nga xamante sa ne fait même pas un kilomètre non franchement war nañ toog autour d'une table waxtan ci ba trouver une consensus waaw parce que les deux gars là mon franchement man dama koy déplorer dama ko yag nak di déplorer xamna nak problème bu bu naqaree régler la problème bu naqaree régler parce que lolu xamna né si une fois que gars yi nga wax né nañ interpeller CNG nañ ci interpeller CNG bés bu ci CNG dugalee loxo ah du baax donc bala CNG du ci dugal loxo nak les promoteurs de la lutte simple nañ ci tok waxtan ci nañ ci tok waxtan ci té wa adressé aussi nañu xol ni ñu joxé date parce que boo xoolee aussi loolu yëpp mooy problème de gaal Ben benn promoteur di am trois dates au niveau de Grand Yoff voilà quatre ah nit a soxla fa benn date doo ko mën am loolu aussi li ñu war a xoolaat la loolu moo waral concurrence bi am entre terrain gaal gi ak Grand Yoff concurrence bi lolo ko waral Lolo lolo ko te lolu xamna né problème bu nakaré régler la problème bu nakaré nakaré naqaree réglé aja sen émission tolon avec ñak Albert di ñaan aussi les internautes hein, ñi nga xamante ne ñoo safoo Mindialane TV gis nañ abonné yi mais franchement euh, la nuit abonné encore parce que abonné yi dans les groupe mooy doole chaîne bi abonné yi vous di abonné di aimer di partager aussi di liker surtout les partageurs parce que fin ñu visibilité dalle, mooy presque mon nekk suñu problème donc euh, abonné leen en même temps de di partager vidéo parce que partager, yooyu mooy may chaîne bi visibilité franchement gis nañu taxaway bi nak parce que mi naa la parce que bokk na ci bébé yi bokk na ci chaîne yi nga xamante mo mujjé mais franchement mu ngi def un pas en avant donc ngeen leen ci japp rek incha allah dina aca seen émission njoktoor la Albert P